Euh, jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yu télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës tañu doon ko jukki bokk na euh, ci yi euh, ma nga nekk ca commune bu ñu naan Thiamène Pass foofee nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bokk na ca lu ñuy sàkku wàllu courant ak itam cas des tout petits case de santé ba fa itam ñu daal dik cay teg ay jumtuwaay yu mucc ay bugga defee itam lépp lu ñeel wàllu paj ma gën a ñoŋ foofee lu soxal itam saxaar si jàppaleen ne dina deqiwaat ca xal wa jëm Jurbel jàpp fa nga xam ne nag moom moo di euh, Mbàkke ki xam li ni mel euh, directeur général bi nga xam ne nag euh, moom la ñu dénk wàll wi lépp itam daal di tënkoo ci lu màggaluk Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wi de daañu leen amal aw reportage woo xamante ni Pape Balla Gaye moom moo leen koy digtal wallu tàggat yaram des na ko waxtaanee ci jotaay wi Afrobasket Rwanda 2023 xam ngeen ne réew bu Sénégal ni ki démb ginnaaw itam final bi ne dafa rek soox ca diwaan bu Italie lu toll ci fanweer ci ay doomi aadama daal di ñàkk seen bakken bu ñu jógee Italie dañu wutali nga xam ne nag moom moo di ca Pakistan foofu itam jàpp leen ne aw saxaar moom moo bàyyi yoonam ba lu tolloo ko fukk ak juróom ci ay doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakken tënk yaa ngook mbokk yi ginnaaw bàkk bi ma dikk ñu faram fàccee ñëwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko nga xam ne nag euh, noonu la ñu ko junjee woon jàpp leen ne euh, njënjël yi ma nga nekk ci commune bu ñu naan Thiamène Pass foofe askan wu nga xam ne itam ñoom ñoo fa yeewoo la ñuy sàkku bokk na ci wàllu euh, courant case de santé wa fa itam ñu teg fa ay jumtuwaay yu mucc ayib bu ko defee lépp lu soxal wàllu paj ma gën a bar kàddu yi ni mel ñu ngi ko yëkkati ci aw jotaay woo xamante ni itam ñu ngi doon rek bàyyi xel yenn ci ay ndongo yoo xamante ni ñu nga nekk ca école élémentaire ya fa Euh, ci lu euh, soxal wàllu couverture euh, maladie universelle Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam reportage. woo ca Denjeel yi nekk ci commune bu Thiamone Pass ñoom nag ab cas de santé bu ami garab. ñu xoccal leen courant ba noppi tabaxal leen ay infrastructure bokk na ci lu ñu bëgg ñu ngi ko xamle ci cérémonie d'enrôlement bu ñu doon def ngir jagleel téeméeri élèves yu jàngee ci école élémentaire yi ñu mën a faju te duñ fay dara ci programme bii de couverture maladie universelle. comme que dañuy may rek dañoo soxla suñu alalu bopp lañ soxla ñu am courant comme ni ko ñëpp amee di naan lu sedd di defar lu sedd ndax loolu lañ mérito loolu lañ soxla li si def monsieur le maire dañoo bëgg nga ubbil suñu kaas bi nga collecter suñu école bi. ñëwoon fii tey nag ànd ak euh, monsieur le maire Moussa Ndiaye nekk euh, maire de la commune dañuy li bokk si compétence am ci zone am accompagner ñi pour ñu dimbale waa élèves école Dendéli pour ñu mën a bénéficier aussi. ci la couverture maladie universelle. muy loo xam ne ni maire Thiamène Pass rafetlu na ko lool mu jàpp ne sax buñ fexee ba xale yi faju dina gën a ñoŋal seenum jàng. ndax jàppale xale yi nag ci seen wérgu yaram lu am solo la ndax nag gone yi dañ fi nekk di sàkku xam-xam ñu ne nit daal bu fekkente ne góorlu ne ba am xel mu sell xel mu sell mu aussi dafa war a dëkk ci yaram mu sell ndax ñaari aussi dañuy nekk loo xam ne mënuñu tàqali ko kon Abdou vraiment yëg nañ bu baax a baax geste bi nga def. caameen gépp kontaan nañ ci rawatina waa Denjeli waaye particulièrement man mi nga xam ne tey maay maire bu caameen paas. njàmbat la fa jëpp ki jiite mairie bu caameen paas moom nag jàpp na ne dana def lu mu mën ngir satisfaire seen i doléance doléance yi ci réew bu euh, Sénégal bokk na itam fexe def kéem kattan ba daal di téye ndaw ñi euh, fii ci réew mi bu ko defee itam ñu bañ a amal li nga xam ne nag euh, moom moo di mbëkk mi ci doole jàppale ne organisation nationale ou gestion d'activité de manche ci la jamono itam ñu ngi def ay pexe ngir rek ndaw ñi gën fee des ci wàllu nawetaan lañu ko jaarale ca diwaan bu Kaolack foofe itam ay lenn ci loo xamante ni ñu ngi ko fay waajal bu baax a baax jëmale ko ci ndaw ñi moom Babacar secrétaire euh, général bu bile organisation moom la ñu leen digtal ay kàddoom euh, ci micro loolu laa la wax dama ne la ñun gis nañ ne il est possible avec l'ONCAM il est possible li ñuy wuti bitim réew ñu am ko fii parce que nee naa la ñun navétane de développement la ñu moom la ñuy def tamit moom lañ en tout cas instruire suñuy démembrement yëpp te gëm nañ loolu parce que ñi ci dugg ñëpp bénévolat dañ ci ñëwee te bon bu dee lu neex rek nga ci xaar amul fii. amul fi très sincèrement kenn ku ci nekk da ngaa futti sa mbubb indi sa xalaat indi sa am indi sa doole pour accompagner li fi nekk parce que aussi ñun comme ni ma ko waxee rek na ñu mag fuuf ñu ngi ci biir donc li leen ci bàyyi mooy véritablement combattre loolu noonu nga xamante ne nii ñeneen ñu ngi koy doxalee neneen te ñun daal doxalin ñu bëgg mooy mbir mi demaat à la te bu demee à la base ndaw ña la fay fekk ndaw ñi gis seen bopp ci li ñuy def euh, defe naa ne dootuñu en tout cas ñee beneen réew di ko uti leneen bay dugg ci ay gaala ak kenn xamut euh, lool en tout cas nekkul suñu taxawaay te ñi ngi ñaan suñu ndaw yooyu nga xamante ne suñuy njaboot lañ suñuy rakk lañ suñuy jabaat suñuy doom Euh, ñu ngi lay mastawu njaboot yi nga xamante ne nii euh, ñoom la ci seen i bokk des di mastawu ndawi Sénégal yëpp waaye di leen waxta que ni possible en tout cas ici au Sénégal dañuy wuti bitim réew am ko ca diwaan bu Kaffrine jàppaleen ni ñaar fukk juróom ci ay doomi aadama yoo xamante nii ñu ngi doon nas mbëkk mi ca loole mujjut sotti ci loole itam jàppale ni groupe Tatan jamono yi nag ab association la woo xamante ni mi ngi bootu ci société civile ñoom itam ñoo ngay def kem kattan ngi rek daal di téye ndaw ñi ci réew mi def itam ci li nga xam ne moom moo di seen bopp toog fii teg fii lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci Adja Fatou Gaye moom mooy responsable boobu les programmes ñu digtal leen ay toll ci 25 te ñoom ñëpp ñu ngi leen enregistré ci base de données wu euh, BAOS bi parce que ñu ngi liggéey ak euh, ay partenaires yu bëri ci wàllum formation tey nag DGAS direction des Sénégal d'appui euh, des Sénégalais de l'extérieur moom moo ñu sollicité pour ñu mën a dérouler formation bi ak ñii ñu ñu sélectionné ci base de données bu bu bu BAOS bi nekk fii nii Kaffrine. bu ñu amee accompagnement technique bi ñu bëgg. ak suñu facilitateurs yi ñu àndal tey dinañ leen jàngal bu baax wan leen nan la ñu mën a euh, gérer seen activité ngir mën a am revenu bi ñu ci soxla mais bu weesoo loolu dinañ leen topp parce que accompagnement bi du yam ci formation bu trois jours yi trois jours mun na suffire comme mën na bañ a suffire parce que nit ki boo ko jàngalee après di nga ko xool topp ko xool ndaxam activité bi li ñu ko jàngal am na si njëriñ ndaxam financement biñ ñu ko apporter tamit mu ngi koy gérer convenablement pour man am activité am pérennité te loolu dinañ si liggéey incha allah ak bawos bi parce que moom moo nekk ak ñoom fii si localité bi ngir xeex mbëkk bi mbokk yi yéen yor ay seex yenn saa yi day faral di doon jafe-jafe ndax bëri na ci ay wayjur yoo xamante ni seen i ay loxo jotewul seen ak ginnaaw tax na itam association Jumeaux et compagnie taxaw temm ngi daal di teg yenn ci ay doléance bokk na ah, ci ñu jàppale ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di yaay seex yi si lu soxal wàllu prison en jëm ci wàllu kër docteur ak yeneen yu ñu xeetoo bu ñu sukkandikoo ah, ci njiitu association boobee nag madame Seck Ndeye Fatou Guèye lay moom itam tàllal na loxoom ñu teewlu ay kàddoom. ngeen nawet nu mel te seex tam dafa fragile en général nawet bi ak tàngoor bi xale yi soxla woon lool lool lool lool vu tàngoor bi ak xam nga rek poos yi tamit oyof na te faj bi metti te en général seex yi dañuy fragile moo taxoon consultation gratuite vraiment ñu soxloon ko bu baax di ñaan mu gën a yokk ñam la moo tax ñuy ngi tàllal suñu loxo bépp euh, bépp autorité publique privée ONG yi tàllal nañ suñu loxo ñëpp lii gën a soxal mooy santé tey kañ tey comme tey yal nañ consultation euh, journée boo xamee ni consultation gratuite la buñ sañoon mu nekk loo xamee ni permanent tey ñu amoon carte yoo xamee ni genre couverture maladie universelle boo xamee ni ku am sa carte boo demee ci district santé wala bépp hôpital boo dem doo fay seex yi ñu bokk ci association yëpp loolu moom vraiment Euh, soxla woon nañ ko loolu moo tax ñu ngi tàllal suñu loxo képp ku ñu mën a euh, dimbali ci ci côté boobu. xale ku ko defal sa bopp nga defal te seex yi yàlla def na ci barkeel boo xamee ne ku ci def vraiment day gis njëriñ te seex ma alalu yàlla la. léegi nag bis bu réussir mel nii c'est grâce à mairie Pikine Ouest. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen ci loo xamante nii maa ngi ko junj bu ñuy door yi la jotaayu euh, xibaar bokk na euh, ci seen ak bëgg-bëgg sara saxaar si euh, siflawaat xal wa jëm Jurbel jàpp fa nga xam ne moom moo di Mbàkke bu ñu sukkandikoo ci directeur général wi nga xam ne moom la ñu dénk wàll wi la ko waral bokk na ci waajtaayuk màggalu ko Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul la ñu bëgg bokk na ci yoon waa du taggatémbe benn yoon reportage bu Pape Balla Gaye ak Talla Samb ñu seetaan gannaaw juróom-benni at gannaaw ba train bi mujjee ñëw ci diwaanu Mbàkke saxaar gi nag dana dawaat ci lu dootul yàgg gannaaw ba nga xamante ne amal nañu relance chemin de fer bu Sénégal bi lee voyage bu njëkk goo xam ne dañu koy def ngir daal di mën a saytu yoon yi directeur général bu chemin de fer du Sénégal di malik ndoy di xamle ne xelam dal na ci mbir yi ngir fexe dem beeg dikk bi ci diggante Diourbel ak Mbàkke doon loo xam ne dana mën a yemb rawatina ci màggal Touba gi jàngale lu ñu naan géométrie ak devers de voie ak géométrie devers ak nivellement lu ñu naan nivellement transversal et longitudinal loolu moo ñuy permettre ñu xam ndax voie bi fu mu toll nii euh, yemb na donc yooyu noonu itam résultat enregistrement bu ñu def tey bi nii dañ koy envoyé euh, suñu benn bureau d'études techniques bi nga xamante ni mi ngi Paris ñoom itam ñu def analyse bi renvoyé ñu ñu corrigé ñu war a corrigé comme ça loolu itam ça daf ñuy permettre ñu am certitude que ni dinañ mën a circuler dans de très bonnes conditions euh, fii ak bi yegsee. waaye nag balaa loolee faw ñu daal am plan de circulation nga xamante ni daañu ko daal di tëral gannaaw ba ñu jotee ci visa sécurité ferroviaire suñu sukkandikoo ci directeur général bu chemin de fer du Sénégal. conteneur moo gën a yomb boo commencé jël ay passagers di leen loolu dafa am li nga xamante ni da am ay visa de sécurité yi koy soxla. donc yooyu noonu ñu ngi si xar suñu tànk tubéy incha allah te bés bu loolu yembee rek bu boobaa opérateur exploitation yi ñi nga xamante ni ñu ngi mel ne ay GTS ak yooyu ñooñu la ñuy waxtaanal pour xool maintenant nan la ñu mën a am na ay réunion yu ñu prévoir fu mu toll nii semaine prochaine. incha allah bu ñu waxtaanee ak ñoom ñu xool léegi na la ñuy def pour mën a exploiter en tout cas ñun lu ñu war a def euh, au niveau des rails ñu ngi koy def convenablement. projet relance chemin de fer du Sénégal njëg li ñu daal di koy xayma ci lu tolloog ñaar fukki milliards ci suñu xaalis lépp lu jëm ci wàllum fret muy bagage ak yu ni mel bokk na ci li nga xamante ne moo gën a jàmp fi léegi ñuy yeggale liggéey yi nga xamante ne sumb nañu ko muy ñetti gaar ferroviaire yi ci diggante Diourbel ak Touba. Jurbel ak Touba Pabal ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi ñu àddu ci leneen wax itam ci élu yu chambre de métier ñoom ñi nga xam ne nag ñu nga woon ca diwaan bu Thiès ngir waxtaanee lenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dundu ci secteur de l'artisanat ndax itam amuñu sax koo xamante ni des na ñu wax ak ñoom ngir rek ñu jotale seen i ay kàddu jëmale ci njiit bu réew bu euh, euh, Sénégal tax nañu taxawal aw association nationale wu élu chambre de métier du euh, Sénégal Mamadou Dieye moo yor kàddu lii moom lañ leen di digtal ay kàddoom. pour ñu gën a ñoŋal suñu secteur bi parce que gis nañ ne que secteur bi ku ci nekk day jóg di àddu ci turu secteur bi te yàlla xam na ne maanaam yoroo ci boobu ndomb tànk noo waxuma ne yoru ndomb tànk mais ndomb tànk bu ëpp éli amu fi kon état muy état muy comme mu mën a doon éli la war a waxal éli mooy les vingt sept éli de chaque région donc muy les trois cent soixante-dix-huit élus du Sénégal. jéem a def tuuru chambre de métier Sénégal yëpp boole artisan yëpp doon benn. bi képp koo xamante ne yaa ngi nekk artisan ci biir Sénégal nga xam ne association bi dañ ko war a ñoŋal dañu war topp ci ginnaaw association bi ba lépp loo xam ne mu ngi doxal secteur bi mu jaare ci élus tey autorités yi nga xamante ne lu mel ni ministre de l'artisanat lu mel ni directeur de l'artisanat lu mel ni APDA lu mel ni ACPEX e lu mel ni euh, ADPME nga xam ne institution yi nga xam ne ñu ngi dimbali artisanal ak COSEC. baax na aussi ñun euh, en tant que les élus ñoom ñu xam ne war na am loo xam ne war nañ ko jëflante ak ñun ñu ñu koy jëflante ak yi ndaxte ñun ñooy njëkk créer emploi emploi bi ci ñun la parce que tey boo xoolee ni ko élèves ni ko enseignants yi defee ci classe yi ñu ngi def nu ko raw ci biir atelier yi te amuñu benn appui état amuñu kenn koo xam ne moo ñuy accompagner moo tax it nag ñun ñu ne réew mi suñu loxo la nekk te lu ñu bëgg ci réew mi tey su fekkente ne tey wax dëggee la artisan yëpp mankoon nañu donc lépp la day jàll mooy ay formation ay formation des élus formation des artisans moom bi mu ñëwee ba léegi refermewul parking chambre de métier yi euh, yoo xam ñu dañ ko defar mais gisuñu ko loolu ay diggee rek la ñu am loolu nan lañ bëgg mu dagg ci secteur bi dañu bëgg képp koo xamante am na loo xam ne bëgg nga ko ci secteur bi nga ñëw nga wax ko mais nga def ko parce que dinañ à la lettre lañ lay suivre boo ñu ne déwén dinaa def lii bu déwén boo jotee boo ko deful dinañ la ne ah yaa ñu waxoon lii déwén da nga koy def defoo ko aywa mbokk yi ñu àddu ci lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñuy yëngu ci wàll wi ca boqal ñoom itam ñoo amaloon aw bés woo xamante ni ñu nga doon delloo njukkal bu baax a baax élèves ya gën a xarañ ca boobule euh, commune jàpp leen ne professeur euh, Fatou Ka Gueye euh, moom moo nekk li nga xam ne moom moo di marraine bi moom itam ñaax na ñenn ci ñuy yëngu ci wàllu njàng mi ñu xiirtal ndaw ñi ci loolee ñu teewlu ay kàddoom. peut-être recommander tuuti suñu suñu suñu amicale bi ndax gis nañ ni léegi affaire science physique nekkatul jigéen ñi rek ñoo fa néew mais góor ñeeg jigéen ñëpp au niveau national gis nañ ni lu tuuti ñooy dem ci série scientifique ñeneen ñi nekk ci série littéraire alors que xam nañ ni léegi tey science moo yore àdduna bi donc di leen gën a ñaax peut-être ci seen activité yi ñu boole di leen initier xale yi ñu ndaw ndaw ñi ci ëfu science ak affaire science ak technologie donc euh, lu ma waxaat leneen aussi mooy perturbation yi aussi ci cours de vacances yi ñu bàyyi xel di xool programme yi ndax yegg na parce que chaque fois programme bu yeggul day euh, dem si suñu suñu xale yi wàññi seen niveau ba aussi loolu plus tard da leen di dab donc loolu aussi lu lu jar bàyyi xel la aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen leneen lu mu doon doon dunj bi ñu door yi la jotaayu ah, xibaar bokk na ci wàllu ah, tàggat yaram afro basket bi xam ngeen ne eh, final bi doxoon ci diggante réew bu Sénégal ak itam Nigéria ba Nigéria mujj jël li nga xam ne nag moom moo di ah, ndam li suñu ndaw la nga xam ne itam moom moo teewal télévision Futur Média ca yi moom Pape Fara ngi dikkaat na bu baax a baax ci parcours ñi nga xam ne ñoom ñoo di Lion yi seen ëllëg itam dikkaat na ci mu ñeel équipe nationale bu Sénégal Pape maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la bàyyi nga tënk. jërëjëf euh, Cheikh Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk téléspectateurs yi kon ni nga ko waxee rek afro basket bi jeex na Nigéria moom moo ko mujj jël ci kaw Sénégal 84 à 74 mu nekk ñetteel bi yoon nag ci diiru 5 ans yi nga xam ne ñoo mujj kon Nigéria xam ngeen ne seen équipe li ci composé lu bëree bari ay américaine lañ yoo xam ne fële la ñu nekk meilleure marqueuse mais Diana Oto moom moo ko ram moo ko gagné daal boobu la. Seda bu Mozambique tamit bokk na ci. kon mu nekk jogante yoo xam ne yu neexoon la yu am solo ci wàllu conférence de presse tamit dem bi yenn choses yu ñu mel ni ñoom ayaa nee nañ waxaguñ dara après ci la ñuy doog a xam daal lan moo ci am fi mu toll ni olympique am bi ñoom ak booy am U25 yi ak ñii fi nekk nii suñu leen boolee peut-être dinañ am dara am na liggéey bu mag bu ñu am mu nekkoon compétition bu am solo ci diiru fukki fan ak fukki fan ak benn ñu daan koy def kon loolu lañ mën a jëlee fii ci Rwanda gannaaw bi nga xam ne ndar kàpp nañu lii di compétition afro basket ci wàllu jigéen yi Cheikh dina la jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñu jëm topp rédaction beeg ak sénégalais yi ñu jëm seetaan. jaajëf yow itam ñu di la jaajëfal bu baax a baax di la wax ne liggéey bi euh, rafet na ak léegi nga ànd ak ñun ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, afro basket Rwanda 2023 ginnaaw Rwanda foofee itam mbokki dañuy des ba tey ci wàllu basketball wax itam la nga xam ne moom moo xew ca RDC kongo jàppale ne équipe yu jigéen ñi mu ñeel U25 bi ñoom itam jël nañu li nga xam ne nag moom moo di championnat bu jeu de la francophonie réew bu Sénégal doon laalee euh, ak Cameroun ci loole la ñu leen dóor 78 54 euh, euh, ñuy jaajëfal bu baax a baax suñu gaynde yi le tam di waa U25. ñu wax ba tey mbokk yi ci leneen leneen ci loo xamante ni itam àddu woon nañu ci wàllu tàggat yaram ba tey stade municipal bu Marsassoum foofee itam amul tribune amul itam li nga xam ne moom moo di ay projecteur askan wa fa nag jàpp na ne lu nu mel jaaduwul benn yoon ndax saa su nekk dañuy bëgg di tàggatu saa yu leen soobee Bakary Konte xaali jàmmi reportage. ci final quatre grands bu ñu doon amal ci diwaanu Marsassoum ci leen ndaw yi daal di saisir occasion daal di réclamer ci nguur gi mu tabaxal leen benn stade municipal bu bees. c'est notre objectif c'est de de de de pouvoir éclore des des des talents. suñu objectif nag moo nekk ñi daal di promouvoir ay jeune talents fii nag bëri nañ ay xale yoo xamante ne mën nañ football lool wante nag conditions yi permettre leen pour ñu mun a wane seen bopp ndaxte seen stade bi baaxul. donc pour cela il faut maire bu Marsassoum moom tamit loolu moo nekk xalaatam. bu ñu paasee 19 heures du ñu mën a jouer parce que day lëndëm euh, stade bi amul projecteur. donc ñu ngi koy ñaan véritablement lépp lu mu a def pour au moins stade bi mun a am euh, projecteur dinañu dinañu arrangé bu baax a baax a baax ak euh, grille de protection yi gis ngeen ne euh, seetaan ngeen match équipe bu dugalee bii rek supporters yëpp ay dugg ci biir terrain bi te loolu vraiment day mettre joueurs yi en danger day mettre arbitres yi en danger donc ñu ngi koy ñaan vraiment mu ñu jàppale ñu pour au moins ñu clôturer aire de jeu bi pour que arbitres yi footballeurs yi. Euh, yeneen supporters yi ñu mën a nekk en sécurité. pare tourna bi moom nag mu ne dina ut ay partenaires pour jàppale ndaw yi ñu daal di am stade bu baax. nous devons tous nous engager à apporter notre soutien. ñun ñëpp dañu war a engagé wu daal di indi suñu soutien jàppale football Marsassoum ndaxte stade bi nu mu mel nii baaxul dafa manqué équipement loolu moo tax ñun ñëpp war a jóg daal di engagé wu lu ma jàpp ci objectif ak ci décision mooy ci sama côté dinaa def lépp pour daal di indi sama ndimbal pour nag stade bi mun a nekk stade bu baax euh, loo xamante ne nag aw ko dinaa ko dem uti indi politique publique yi ñu ñëw ci fii diwaanu Marsassoum pour nag. nag ñu mën a am stade bu baax. aujourd'hui sa terrain n'est pas digne de. de ce grand Marcel Sonko que nous connaissons. parrain bi daal dina équipé équipe yëpp nekkoon fii ak arbitre yi wante tamit joxe na ay file ay ballon ak benn subvention loolu nag zone bu Marcel Sonko la ko jox ndaw yi nekk fii ci diwaan bi nag di xaar tem nguur gi daal leen jàppale ñu tabaxal leen stade municipal bu bees. jaajëf euh, Bakary euh, Konte ñu sant ko bu baax a baax euh, gërëm ko ñu àddu xibaar bi ci réew wax itam ca jëye ji nga xam ne nag moom moo am ca itali jàppale ne aw bateau suux ba lu toll ci fanweeri doom aadama daal di ñàkk seen bakkan waaye itam ca Pakistan foofee itam aw saxaar su bàyyi yoonam ba lu tollook fukk ak juróom ci ay doomi aadama itam am ci génn ci àddina Ibou Diouf la ñu ci àndal ci aw tënk ñu seetaan. xibaaru bi ci réew yi dañ koy door rek njombe bi nga xamante ne moo xew ca Italie ci île bi ñu duppee Lampedusa lu toll ci fanweeri migrant ñoom la seen bateau suux ñaar lañ ci jot a gis ñu ne nag lu tollu ci fanweer ak juróom-ñeent ba jamono ji ñu leen di wër ci xam ne xibaar bi di di agence internationale pour les migrations bu ONU te mu féete foofee ca Italie. ñu ne nag am na sax ñeneen ñoo xamante ne ay passager la woon am yenn jafe-jafe. ñooñu tamit ba jamono ji ñuy wax ak kenn gisu leen li ko waral nag yu nay condition yu xawoon métti mu aju ci wàllu météo àndoon ngalaw ak taw bu métti moo waral loolee am. ñu wax ci beneen njombe boo xamante ne rek jot na xew ca Pakistan foofee lu toll ci fukki nit ak juróom ñoo faatu gannaaw ab train boo xam ne dafa raaye am na tamit lu toll ci juróom-ñetti voiture yoo xamante ne rek amees nañ fi ay jafe-jafe. loolu nag mu ngi xew tey ci dimanche bi foofee ca Pakistan ñu ne express boobu doon daw diggante euh, Aracha diggante nag Karachi ak Atobowat am na tamit jafe-jafe yoo xamante ne rek moom la am moo waral mu amal accident bi ñu ne nag ñan fukki nit ñoo amee ay gaañu gaañu ci accident boobee ñu ne nag ñi nga xamante ne rek ñooy responsable chemin de fer bi bëri na ci tamit ñoo xam ne ñu ngi ci jafe-jafe jamono jii ca Moscou dañuy wax rek ci fitna bi dox seen digganteeg waa Ukraine meeru Moscou nag nee nañ am na ab drone boo xamante ne dañ njotoon ne rek bu jotoon daanu ci biir Moscou mënees na fa am ay jafe-jafe moom la l'armée bi rek tas foofee nga xamante ne rek mooy biir Moscou ñu ne nag défense aérienne yi ñoo waral li ni mel tey nag lañ ko nemeeku rek bu fukki waxtu jotee gannaaw taxawaay boo xamante ne rek l'armée ba amoon na ko seen njiit nag moo xamle xibaar bi ci Telegram. ñu jeexale ko rek ak saatu borom xam-xam kooke di Hélène Carrère Dancos nekk jigéen bu njëkk bi nga xamante ne mu jiite académie française moom nag njabootam moo xam le ne faatu na tey gannaaw ba nga xamante ne rek jot na liggéeyal réew France ak lépp lu aju ci wàllu langue française moom nag atum 1978 la dugg rek ci wàllu édition ak këru liggéeykaayam bi mu doon duppee euh, empire atum 99 nag la dugg académie française boo ak léegi nag ñu ne mu ngi si doon amal liggéey bu mucc ayib jaajëf Ibrahima yow itam ñu sant la baax a baax gërëm ko gërëm la mbokk yéen itam naka noonu waxtu yëkkati jotaay jot na dig daje nga woon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay ko ci 20 itam daa ngeen àndaat ak ñun lu mooy loolee des leen di wéy ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.